Youssou Madjiguène Ndour le roi di mbalax nee na ñaari at yi mu toog yëpp fasewul xànc ak morom yéeyul yàbbi ci réew mi dafa am ci lu mu nekkoon lu ama am solo loo xam ne ci loolu yi la nekkoon na ko nag ci li réew mi ndax réew mi moo soxla boppam ñu déglu si lëf te dellu si waat depuis deux ans amuma benn jot mhm. gars yi tamit amuñu benn jot ci loolu laa nekk moo tax mhm. yenn yi ci réew mi sax dooma ci dégg c'est sûr ci loolu lii laa nekkoon parce que mënoo nekk ci lii ne ci lee mhm. donc moo tax ma concentré wu deux ans ça ne veut pas diir ça ne veut pas dire que j'ai arrêté la politique wala yu ma daan toppatoo si réew mi waaye dama koo talul li ma tal mooy liggéey bi nga xamee ne dafa am solo ndax àdduna bi aussi am na yu bari yu fi xew euh, covid bi jafe-jafe yu metti et tout te musique dafa nekk pàcc boo xam ne ci biir àdduna aussi dafay jouer rôle am important d'ailleurs waaw te yàlla def ak mbaaxam def ñu ci benn position boo xam ne dañu yaakaar di nu déglu. looloo tax euh, booy def album source la pour la nouvelle génération et tout donc ma concentré wu ci album bi effectivement euh, mi ngi tudd éclairer le monde. Modou muy non album tudd. ah le monde maanaam maanaam leeral. àdduna àdduna bi ah. Mm-hmm. ah macha allah kon nag àdduna bi incha allah ci 2024 bi le 2025 bi dana leer naññ avec Youssou Ndour maanaam daal day contact lampe bi Assane mu ngi noonu nee na ñaari at yi ci lu am solo la nekkoon moo tax fasewul xànc ak moroom ci politique waaye nag nee réew mi moo soxla boppam ku nekk na nga jël say te nga xool foo jëm. Hmm. waaw kon nag xam naa moom jó jombul dina am fu mu jëm. waaye Youssou Ndour de day ab sénégalais rek xamit yi. Hmm. tey mën a liir. jamono ni muy doxee. mën a liir. waaw dana xam xam jamono nan lay doxe hmm. ak lii fan la jëm. suñu borom da ko see dimbali. Hmm. moo waraloon teekaaral gi du leneen. Hmm. bu demee ba liir ni lii ma gis nii kat baaxutut si lii ma nekk nii si politique bii président Macky Sall mii fa mu jëm baaxut. te mënuma koo bàyyi. léegi nag naa dem nekk sama programme. dem mm-hmm. nekk si programme am. mais nag li ngeen di wax bokkul yéen ñaaru de. ah kay moom bàyyiwul ba mu nee moom daan demoon rek doon defar album. de album problème yi maanaam problème mu fi yow kañ nga xam ne président Macky Sall mii kiyatul fii ak ñaari at xamoo si woon dara. non juin bi passé la nga xam ne dematut pare na ci. nga xam ne kii boo ko bu ma xee boo ko bu ma xee mu daanu boo ko bu ma xun mu daanu. juin. nga soñé bi nga ko xam. waaw juin mooy xam naa na lépp yusu waaw moom du ànd ak koy daanu. moom bis bu la bàyyee rek xamal yaa ngi si suuf. depuis kii nag mais moo daanu parce que mais waxuñu fenn ñu bàyyi na. nga ni mosuñu wax ne ñu bàyyi dafa jeexal président Macky Sall dafa jeexal te xam na ñi mu fi teg duñ gañe te xam na ni riir mii di ñëw bu demee foofa bu ñëwee du ko fi bàyyi mu arrière dem demaat sa xam. mais di ko fàttali ne ko dafa am parti dafa am mouvement politique fekkee ma ci boole. te nag fekkee ma ci boole warta doon Youssou Ndour point. warta doon Youssou Ndour point. lu mu war a doon. moom ni mu waxee mooy fekkee ma si boole Youssou Ndour la point. ah loolu la wax moom. waa ni mu waxee comme fekkee ma si boole fii ak ñaari at dañu tekk nekk si leneen te moom moo war a dem si musique mais fekkee ma si boole daa war a wàcc si terrain bi politique yi. Hmm. kon na wut ku mu àndal politique yi loolu responsabilité wala mu tas fekkee ma si boole. Hmm. waaw. da ko war a tas bàyyi ah, leen koy tasee asant mooy ni leen fekkee ma si naa si musique bàyyi naa politique mënu ma ci am dara dellu naa si politique mais nee na bàyyiwul wax na nga ni waaye bu bàyyiwuti mm-hmm. na si coow li coow lan na dugg si politique bi ah, déggoo li mu wax ah, réew mi dafa soxla boppam kenn ku nekk wateelal ku la neex waaw loolu kay mooy man sama yoon nekku si sama yoon nekku si te da ngaa amee mouvement am ay politiciens yow fii gis ñu fi woon nanu baxal ni ku ne xoolal foo jëm noo bokkul de non dama ne loolu ku ne am na droit wax ci maanaam réew mi soxla ku ne xoolal foo jëm loolu nit yàgg na ko wax Youssou la wax waaw man tamit dama laa wax ne la loolu lii mu wax nit waxoon na ko fi ku ne na nga xool foo jii man bu ma saagaa Sénégal yëpp saaga taxul saaga baax waaw dama dëgg waaw kon Youssou Ndour laa ni na jël ay responsabilité mu wax mouvement fekke ma ci boole di diw la ñuy jàppale man nag maa ngi continuer sama musique wala mu tas ko Mm. tas leer na de non man kay tas gi nga bëgg a def moo ma jaaxal da ko war a tas ndax ñaari at yi yëpp fekkee ma si boole xaj na da ko defoon noonu sax tax fekkee ma si boole wër ndomba Ablaye Wade la woon ba mu jeexee da ko war na tas mais dafa ñu ànd ak président Macky Sall dugg doon si ministère nekk cee doon si ñaari ministère de conseil ministère de nangam nangam mm. waaw nag euh, na ko tas neen bàyyi naa politique delluwaat naa sama musique maa ngi samay entreprise maa ngi samay activité politique mënu ma si am dara ñëpp xam joxe hélas album bi am nga ko la album maa ngi ko doog a dégg léegi nii ci moom si yow. si man waaw ah, si yow laa ko dégg léegi. d' accord ah xam naa albumu ñaari at de mu ngi fàttali film de film yi da ngay ay ñaari at ak ñetti at lañ koy joué. xam naa albumu ñaari at moom war naa am solo. njogu mm-hmm. Youssou de ginnaaw bi ñu ko mujjee gis ca bañ ko sonkorisé mu def acte de grandeur. Mm-hmm. salle bi yuuxu sonko sonko. Mm-hmm. mu may leen 3 minutes xaw ma 5 minutes yooyu mu leen may ñu yuuxu ba mu neex ko mu continuer daf mel ni boobu laa ko gëj gis ci mbir yi génn na nag nee na dafa am ci lu mu nekkoon lu am solo ban jàngal nga def. waaw xam nga asan de nee na Youssou Ndour euh, xam nga fekkee ma ci boole boobu la personnalisé yëf yi def ko yëfi boppam moom fekkee ko ci boole bu ne woon fekkee ñu ci boole. Hmm. mook ñi mu bokkal gëm-gëm la mais daf ne fekkee ma ci boole. moom ki ci bokk day wax loolu rek ki ci bokk daa bëgg bu ñëwee daal ni man fekkee ma ci boole. man su ma duggoon man. Ah, fekkee ma moom dugalu ko moom moo ñëw ñàpp ci waa ji nga xam ne dana fekkee ko ci boole. Hmm. waa ji kay bu moom. Hmm. fekkee ma mënatoo bokk mu jarul mu di leen tàggu sax. parce que dana moom fekkee ko ci boole. alaaji bul bul gas. <laughs> yow demal ah, moom loolu la wax. dana fekkee ma ci boole. <laughs> du waxut ni ah, fekkee ci boole. <laughs> bu ne woon fekkee ñu ci boole ñu xam ni ñu bari la. Hmm. waaye fekkee ma ci boole moom kenn nit la. mooy ay gëm sa bopp loolu it benn nit la rek. tur yi maanaam dafa am tur yoo xam ni. ma jàllal saa yi euh, la ñuy waxal jàllal. tur yoo xam <laughs> tur yoo xam ni turu turu ki ko organiser yëf yi kooku la léegi nag ku ko ca fekk moom da koo jàppale ca la mu ne rek waaye moom moom nee na mbir mi moom sama mbira waaw Youssou Ndour nag. Hmm. Euh, dafa am lu ko taxoon dugg ci politique. lu ko taxoon dugg. dugg ci politique. daf na sénégalais yi dañoo sonn dañoo kii mu jël léppam musique am ak yépp daal réew mee soxla teg ko nale mhm. daal ñëw jaayante ànd ak askan wi ñu xeex Ablaye Wade ñu xeex lay Wade ba Ablaye Wade jóge fi Macky falu réñu Macky Sall metti lool ci sénégalais yi mhm. sénégalais yi ne ci ay jafe-jafe ne ci fitna Youssou Ndour génn ne ku fi yëngal ñu dal sa kaw waaw waaye ala loolu yàgg na du caaxaan fii ku fi yëngal dañuy dal sa kaw loolu yàgg na boobu askan wi la wax ne ku fi yëngal rek ñu dal sa kaw mhm. affaire yi di dox di dox sénégalais yi di bañ di bañ kenn gisut Youssou Ndour kenn déggut Youssou Ndour mhm. sénégalais yi dund fi plus de quatre-vingt et quelques yu ñu rey mhm. plus de deux mille jeunes yu ñu dugal ci kaso mhm. kenn déggul Youssou Ndour ci lim nekkoon dafa am solo te pourtant ba mu jógee di xeex Ablaye Wade boobu Ablaye Wade defu fi lu mel noonu te génnoon na ànd ak askan wi ne day xeex waaye bi la yoon kiiwut xeexut defut dara deful lenn seetaan lool yépp mu génn daldi ne dafa nekkoon ci ay mbir mbiram ñaari at yépp dafa nekk ci lu am solo waaw mu mel ni loolu moom mu nekkoon moo ko gënaloon jël position xeex li nga xam ni mooy li Macky Sall maanaam euh, ba muy jógee fële ci Ablaye Wade dafa jàpp ni musique am beeg yëpp ba muy jógee lool. dafa jàpp ni yëpp amatul solo waaye lii moo am solo. Mm-hmm. xeex ak Ablaye mooy am solo. Mm-hmm. parce que réew mi la. waaw bi la yoon réew mi gën a souffrir. Mm-hmm. mais jógut. léegi nag mu bëgg ñoo gëmloo ne dafa nekk ci lu am solo. kon donc loolu day indi jeexi jaaxam mu wax ñu ne ñu. Hmm. dafa ñëw pour éclairer monde bi. album bi noonu la tudd. Ah. album bi tur bi baaxut. baaxut parce que lii fi xew yëpp comme moom gisu ko woon ba xam position bu muy jël. Hmm. yow mënoo éclairer réew mi. ginnaaw bi réew mi nekkee ci lëndam. xamoo ban yoon nga war a jaar foo war a tànn. xamoo ko nga bëgg a ñëw ne da ngay éclairer monde bi. loolu yab nit ñi la. ku la wax ne la li na ci réew mi lay def ci kaset fas yéene koo wax monde bi. non non da mën naa génn wax ma Macky Sall li mu fi doon def ci ay mm, ñaawteef. alaaji bul gaawtu waaw dootut am sens. ah daf doon am sens ci jamono ji nga xamante ni nit ñi soxla nañ ko fi mu toll nii loolu bu ko waxee du am sens. Mm. xam nga li Youssou Ndour def nii maanaam euh, albumam boobu nga xamante ne bi nee na moom lay génne. Mm-hmm. ne dafa bëgg a éclairer monde bi léegi sax moom na ko ñeneen yi jënd waaye daal man jàpp naa ni safut Sénégal du saf Sénégalais yi. ah lu waaw parce que. éclaire yuus gis nga àddina. parce que ñaari yi toog alaaji ñaari at nit ku ne dafa am cër boo am ci réew. Ah. gis nga as asam. Ah. sooy nga cër. Youssou Ndour maanaam dafa amoon cër ci réew mi. cër bu rëy dafa amoon waaw waaw. gis nga Youssou Ndour bu fekkoonte ni bi continuer woon na losigam bi muy xeex ab Ablaye Wade Macky Sall ñëw mu continuer li nga xam ne mooy losigam mënoon na ànd ak Macky Sall mais bu ko gisee mu nekk ci ay dérive mu écarté wu ba noppi wax ko li nga xamante ni bi mooy dëgg parce que jege woon na ko lool taxaw taxawaay bi war jamono jii nit ñi dañ koy yëkkati di ko xool ca kaw comprendre mm-hmm. mais Youssou Ndour vraiment vraiment vraiment Euh, Youssou Ndour du n'importe qui ci pays ci réew mi. moo taxit am na doxalin yoo xam ne da koo warut. waaw dafa am doxalin yoo xamante ni bii waru ko parce que Youssou Ndour li nit ñi doon xeex kàddoom mënoon nag dimbali askan bi mu gën a sori. ci naka peut-être que ni am na taxawaay boo xam ne bu ko amoon. am na yu bari yoo xamante ni sax peut-être Macky Sall doonu ko woon doonu fa woon yéen. est-ce que Macky mënoon na ci dara. Ah, am amoon na kii. amoon na. amoon na loolu amoon na Youssou Ndour xam nga parents yi dafa am looy soxla da ngay soxla pour médiatiser mais tey bu fekkutoon sunu euh, sénégalais diaspora bi. Mm. nit ñi médiatiser yëf yi ci àddina bi. Mm. daj ci lu ne. loolu benn kàddu Youssou Ndour rek mënoon na def ay kii mënoon na def lu bari ci bitim réew. comprendre nga maanaam fi mu taxawee la moo tax dafa am yoo xamante ne bi waru comprendre mhm. dafa am yoo xamante ni bi waru ko donc mënuñu toog ñu ne ko sa réew jafe-jafe yi nga xamante ni bi moom la am ba hmm. noppi taxawu ci ni mu ci war a taxawee ñu dem ba tey mu naan dama nekkoon ci lu am solo loolu waaw mais ña la wax ne dama li lu mu am tey ak fu hmm. mu yegg hmm. sénégalais yi la waalaaji kun la sénégalais yee ko teete ah. ñoo ko taxaw Youssou li sénégalais yi investir ci moom investir ko ci sénégalais yi waaw donc lay njóogu te loolu mooy li nga xam ne mooy léegi kon la nekk naa ci liggéey ñaari at est-ce bu génnee li nga doon jooytu nii du ko def ci kaset bi amul sens ko jooy bu nga ko def mën naa ñëw ni Macky Sall li nga fi doon kii li nga fi doon kii loolu ñemewu Macky eh, yàq nga réew mi su boobaa loolu amul sens loolu amul sens ñaari at la ko def sony ñëpp ñëpp ci réew mi de ñun ñëpp ay Sénégalais lañ mm. ñëpp taxaw nañ pour sunu réew mais gis nga réew mi. Hmm. dafa am ñoo xamante ni bii dafa leen a defal teraanga yoo xamante ni bii ñooñu waruñu ko fàtte. Hmm. Youssou Ndour sénégalais yi dañ ko taxawu fépp dañ ko jàppale. dañ ko jàppale jël ko def ko sénégalais yi dañ ko def seen moomeel. Hmm. comprendre nga. waaw moo tax dafa am foo xam ne boo fa tollee waroo sax am péete. ok fu dut réew mi. ki nga gis ni yow lii mooy li gën ci réew mi loolu lañ nga war a féeteel. d'accord parce que loolu moo war a nekk sa choix. Mhm. parce que dañ laa tànn. d'accord am na solo dafa passé ak côté. Mhm. Mm. ah moo tax fi mu toll. kaset bi mën naa émission bii mu doon def ni émission kersa la. déedéet billaay kaset bi mën génn alaaj nga passé à côté de. émission xam nga ni bu génne daan réew mi eh, ma ki yàq na ko. émission kersa la boo gisee boo gisee non seulement yamul foofu boo gisee non seulement yemul foofu mais boo xoolee fonctionnement médian <laughs> waaw. ni ñuy doxalee. waaw nga xam ne. Youssou ak média bokkul nag bon benn la. billaay bi Youssou neen leen man média bi sama yoon tranché woon. loolu sooy bul ñun xam nañ yéen yi demee. <laughs> yaa ngi bu tranché woon am na noo xamante ni bu ko doxalee woon. wóor na yàlla média bi rangé ah mais boo gisee yenn ñuy doxalee yépp c'est parce que xam nañ ni lii fi ne neexu leen. yi ñuy hmm. def ni yépp c'est pour faire plaisir euh, sa gars. d'accord mais non kon nag alaaji mi ngi noonu bu kaset bi génnee dinaa la yóbbu waar bu see album bi génnee dinaa la yóbbu waar ndax mën naa yóbbu waar dama ne bu loolu ñeem bu loolu bu ko defee boppam lay toroxal di bu fi nekkee di wax lool sundiwul man lu ci sama yoon bu nee mag eh, eh, yàq na réew mi waaw bu nee mag yàq na bu boobaa yàqu rek waa léegi bu génnee ci son mi rek nga dégg ci Sonko la réew mi bëgg non non loolu bu woyee Sonko na ko plainte na ko askan wi def man de dinaa bu woyee Sonko danaa jiite pétition bu wayee jomaay nag ñu yóbbu ko ci yoon. bu wayee jomaay nag bu leen bu wayee Sonko mu war a mooy jomaay dinaa def. pétition bu génnee ne Sonko la réew mi bëgg. bu mu leen way. bu mu leen way. déedéet bu mu leen di waye. ah. El Hadj nag say mbir jaaxal na. bu mu leen di waye way.